stress boobu. Euh, à l'aide de technique. technique yooyu noonu wan ko à l'aide de pratique. Mhm, Paasan soxla na ko torop. <laughs> moom sama papa ji dañ koy yóbbu ci cours de yoga yi. <laughs> cours de yoga yi dañ ko fa war a yóbbu ah oui. <laughs> boo koy yóbbu da nga koy boolewaale ak président Macky Sall wala Mansour Faye. non boo leen koy yóbbu bu mu déglu rajo bu mu bu mu seetaan mais c'est ça le but. ndax da koy déconcentré c'est ça le but c'est le c'est de c'est de, <laughs> de rétablir la sérénité. Justement comme ça. Mhm. ça va te euh, lui permettre de mieux en fait penser la relation France-Afrique. ah <laughs> non il est plus là. la relation France-Afrique. donc euh, mu ngi noonu en fait. <laughs> am na beneen aussi euh, on enchaîne am na beneen aussi muy mhm. xam naa boobu yow lay gën a intéressé. Mhm. muy la calinothérapie. xam naa dama yéex a yónnee illustration yi. calinothérapie lan lay signifier. dans Kalinothérapie. On ah, il y a Kala, il y a ah. le mot Kala. Ah Merci. oui, ça, toi, tu me connais. Ouais, j'adore les Kala. Ah oui, ça, franchement, ça me fait un grand bien. Parce que la tendresse est un anti-stress. waaw tey ji boo amee lu la metti peut-être si ki la gën a jege ki nga xamante ne moom ngay éprouver tendresse muy sa yaay ton conjoint ta conjointe. ci ñooñu en épouse ton mari. voilà en tout cas les et moi ça me stresse de pas avoir de con de de oui justement parce que peut-être li ngay dund au jour le jour ce que tu euh, nu mu tuddee stress bi ngay dund au boulot stress <laughs> dund feneen ak ci mbedd bi le soir tu as besoin d'être apaisé et de euh, comme célibatus yi nga xamante ne. suñ jëkkër yi nekk ñu fi. Marie Batous <laughs> ñoom seen yaay ngi fi seen sœur ngi fi donc il est important en fait de raffermir les liens li nga xamante les liens sociaux les relation yi nga xamante ne muy amical wala euh, euh, familial parce que tamit nit ki amul lu dul sa wéeruwaay amul lu dul sa famille amul lu dul fi nga xamante ne foofu la euh, jàmm nekkee en tout cas donc baax na ñuy gën a rataxal li nga xamante ne mooy mooy diggante yooyu. Mm-hmm. alors beneen bi mooy wax naa ko léegi yoga boobu jàll na moo nekk nii. Mhm. Euh, yoga peut-être pratique yi bëriwul ñu luñ koy fësal mais dafa baax parce que c'est un en fait euh, de détente te stress dafa laaj en fait nga posé wu ko ci oubli en pendant un instant li nga xamante ne moo lay moo lay sonal donc euh, yoga dafa dafa baax beneen bi mooy la rigologie. elle passe tout son temps à rire. ah ouais, moi je fais que rire et les gens ne savent pas que c'est un bon et moyen d'évacuer le stress. exactement le rire il est contagieux. Mhm. le rire moo tax il faut toujours être animé d'un esprit euh, de positivité nga koy nga koy incarner di ko dund ba pare di ko. di koy yaatal pour képp koo xamante ne des fois sax di nga am loola métti bi di nga xam ne am na koo ne boo ko woowee da ngay reetaan boo ko woowee da ngay fàtte. et c'est tellement important Luisa excuse-moi mais c'est tellement important Rokhaya Dieng les gens ils oublient de rire. Mm. moi le matin je mets la musique à fond je danse je fais ce que je veux. Mm. je remercie déjà je prie d'accord mais après je fais ce que je veux pour créer l'onde positive. Mm-hmm. bi nga xam ne mm-hmm. man su ma demee lu mën a am. waaw loolu tax may tardé kay maam si di weer ma ñëwul fi nga wax ko <laughs> donc ceci dit loolu il faut que nit ku nekk sa responsabilité propre la professeur la joie que tu attends que les autres créent chez toi crée-la toi-même on peut tomber mais il faut savoir se relever à chaque fois et absolument. à chaque situation et bu yàggee da ngay rek et tu viens de le dire beneen technique boo xam ne bokkul woon sax li di la musique la musique elle adoucit la musique elle elle apaise hein, euh, euh le matin euh, oh, écoutez que ça soit de façon religieuse ou pas en tout cas la musique les te déjà sax am na li nga xamante ne mooy massage sonore c'est-à-dire que mu ngi si mu ngi si euh, technique yi nga xamante ne indi naa ko c'est en fait boo koy xool loolu yëpp c'est des techniques de relaxation foo xamante ne tu ne respires que du bien que du bon et que de de euh, l'hormone du bonheur en fait que nga koy nga koy stimuler alors oui déglu musique comme ni ko Asma waxee wala ngay def li nga xamante ne daf lay détendre Louisa parce que je pense que matin moom bu neexee rek sa journée léppay neex. tout le temps comme ni ko Asma di waxee il faut que ñu ciy veiller à ce que ñun ñu nekk en forme. balaa ñu hmm. dem fi ñuy wala ñuy dem feneen ndax parfois di nga yeew nekk sax mais il faut nga forcer énergie boobu nga xamante ne moom la ñuy et puis même chaque type de même ce Merci. bonheur que tu transmets mm. et loolu ànd nag euh, lu ne mm-hmm. ginnaaw boo leen yeewatee ba julli bu julli bu dee catholique boo boo defee ta prière du matin jullit nga def sa julli fajar ba pare moi je pense qu'il n'y a rien à s'ambiancer un peu ah, oui, pour moi le miroir est une façon en fait de tâter sa météo intérieure il faut tout, tous les matins prendre sa météo intérieure et prendre sa météo intérieure c'est évacuer tout, tout, ce qui est priorité évacuer éliminer exactement éliminer tout ce qui est stress regardez xool sa journée fan nga war a commencer si tu as eu réellement des problèmes euh, la veille au travail il convient de te poser et xool nooy nooy nooy def en tout cas ba mettre wala de régler les problèmes suivant leur priorité et je rappelle aussi qu'aux femmes ñi nga xamante ni ñu ngi dund stress parce que ce sont les ce sont en fait les les premières victimes de stress tey jii ñoom ñooy am goitre yi ñoom ñooy am feebar yi il faut qu'en un moment donné ngay pose xalaat aussi sa sa bopp tamit comme comme j'ai l'habitude de le dire en fait nos soucis en fait c'est parce que accepte en fait de porter ses soucis ah te loolu euh, euh, évacuer prendre des techniques le sport le yoga et tout ce qui s'ensuit sont des pratiques yoo xamante ne ça permet en fait de de déstresser Baye Massila pour tëj rek nee na asma souvent àdduna café la borom moo koy suukar. mooy li may xëyal di suukar ba xëy jabet nag dégg nga. <laughs> suukar ko nag rek <laughs> Aïcha mi un exemple de ouais. décompresser les mœurs parce ouais. que même si dit me stresse et je, je ris. <laughs> Aïcha, merci beaucoup. Euh, euh J'allais dire Madame euh, Dien, pourquoi Je sais pas. <laughs> en tout cas, kii euh, di Louisa Dior dit à la future